ami site internet net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek kàddu yi nga xamante ne journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang daal la mu daal di xam ne rek moo di ñi nga xamante ne ñoom ñoo séq politique gi nag nañu daal di woote jàmm nag xam kujje gi xam parti au pouvoir ndax jàmm ci la ñëpp xàcc ndax Sénégal jamono ji nag soxla na jàmm moom Pape Alé Niang nag moo daal di xam le mbir mu nu mel tax na nag kii di di Mouhamed Samba Diène ñu gën koo xam ci turu Hannibal Diène Macky Sall nag da koo daal di yóbbu fi nga xamante ne nag moom mooy ca prison lu sookee boobulee mbiri nag nekkul lenn lu dul cagnotte bi nga xamante ne nag ko lancé nga xamante ne nag seen yaram neexul ak ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw looloo tax nag kii di Macky rek ak ay ñooñam yóbbu ko fi nga xamante ne nag moom mooy ca ndungu ba tey rek moom la mu daal di xam ne rek moom Guy Marius Sagna mooy Macky Sall dafa punir ki nga xamante ne moom mooy Hannibal nag ndax dafa joxe ñu dafa joxe ay information yu bëri ñeel nag élément français yi nekk fi nga xamante ne nag moom mooy ci Sénégal ak ay militaire français yi nga xamante ne nag jamono ji ñoo nekkoon ci suufu Sénégal ba tey rek Hannibal moom nag lañ ko daal di tëjee nag dañ ko tëjee jaay ko doole ndax dañoo xam ne rek ak révolutionnaire la en plus impérialiste bu mag a mag la tey jii nak la mu daal di xam ne rek moom Guy Marius Sagna nee na moom yaakaar ne kii di Hannibal nit dof Fadilou Keita Bassirou Diomaye Faye Amy Dia Pape Abdoulaye Touré Abdou Karim Gueye Ousmane Sarr Cheikh Omar Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñoon ñëpp ay incansable la ndax justice bu Sénégal dañoo daal di rek jël seen doole rek daal di leen koy teg ba tax na nag jamono ji ma ngay bu baax nag ci ñi nga xamante ne nag ñu leen di rey rek ci anam bu jaar joon ba noppi nag di leen di torturer ak ñi nga xamante ne dañuy jékki-jékki na fes réer ci jaww ji kenn du leen gis ak ñenn ñi nga xamante ne nag dañoo blessé te lool waralu ko nag lu dul ci nguuru Macky Sall ña ngay sàkkuwaat nag mu daal di libéré yooyu bile ni ku xam ne mbir mu nu mel nag di Guy Marius Sagna du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification ngir amaat yeneen i info jërë ngeen jëf ci teewlu bi